messieurs les journalistes, bonsoir. Nous allons maintenant commencer à parler en français brièvement. Vous remercier de votre présence et nous excuser auprès de beaucoup d'entre vous qui nous ont invités et sollicités le week-end